mosuma lekk dërëm moom ànd ak man sama ànd ak nit ci conviction la sama jabar jéem ma bàyyi tey ndar cinq personnes yu xamante wu ñëw ni moom moo déw fanaan dem du ma gëm parce que xam naa kan laa bàyyi ginnaaw kon Idriss su ma ànd ak moom en politique dama yàgg moom xam dama ko yàgg xam avant politique nit ñi donc ce qui dit que bu fekkoon dund na neneen nu mu je suis je suis pas fou. looloo tax nga ànd ak moom li nga lim nii. jikko rek jikko mais jikko tax ñu